bi tey li ko waral mooy euh, at bu sot at bu jot euh, ñi nga xamante ne nii mooy euh, les acteurs yi nekk ci wàllu régulation et approvisionnement du marché dañuy daje pour xayma li nga xamante ne nii mooy campagne bi weesu pour ñu mën a aborder campagne bii di ñëw ñu jugee ci campagne deux mille vingt deux deux mille vingt trois ñu noté ci li nga xamante ne ni moom mooy ay yëngu-yëngu yi nga xamante ne ni dafa ñëw joué ci prix bi prix bi yokk ba am na ay jamono sax pratiquement c'est dafa nekkoon un débat national euh, loolu nag euh, bu amee euh, dafa am li nga xamante ne ni moom mooy li am ci stratégie bi ARM di di di di mettre en neuve day toog ak acteurs yëpp waxtaan ak ñoom pour ñu xool nan la ñuy def pour que li nga xamante ne ni baax na ci campagne bi ñu daal di koy euh, gën a li nga xamante ne ni am na ci nag comme ay rëkk-rëkk ñu mën a xool pour campagne bi di ñëw ñu mën koo éviter. atelier bi dinañ ci toog ci ñetti fan waxtaanee li nga xamante ne moom mooy campagne bi weesu ñu li nga xamante ni moom mooy campagne bi ñu ñëw dégager benn feuille de route bi nga xamante ne ni buñ ci toogee tënku ci nag. Euh, acteurs yëpp dinañ gis ni ki li nga xamante ne nii moom mooy dysfonctionnement bi ñu noté woon année bi weesu xëy na dina loo xamante ne dinañ ko saafara ci 2023 2024